asalaamaaleykum nuyoo foog ñu nuyoo parce que ni ñu xamee rek Gambia we we try to get to to to put everything into respect nuyu naa leen anyways because vidéo bii nii dama bëgg a ngeen seeyaa ko saa yu nekk boo ma gisee Tida Joob dafa ñëw pour def comédie yeah dafa ñëw pour def comédie loolu lañ fi am ree bég waaye lu nekk di xew dañ dañ ko war a kot right now na em na daga parce que doo leen mun a yàpp loo booy si ñaata at boys yaa ngi muñ ju ko yabaate yu ñu leen dee def ngeen ñëw si Gambien si démba ju ko yabaate yoo leen def Gambien si dafa ëppa foog ñu wax ko doole mun a dajale Gambien si ñii bàyyi seen liggéey ñii bàyyi seen soxla xam nga nit ñi ñaxa soxla lañ bàyyi démba man suma booba xam nga ñaxa soxla laa bàyyi démba keneen ak keneen noonu pour dem teeru boys dem airport fay seen paas fay seen xaalis boys si sax loolu moo leen gën a naxari Ibrahima soxna mu ne loolu ko si gën a naxari dajale boys si dajale ak jànq yi ndaw yi ñëpp dem airport di xaar boys si pour boys si ñëw naa ñu three o'clock flight amul jox leen boys si flight boys yi war a ñibbi seen club si waxaa ñooñu ba book seen flight ticket ñu ne leen déedéet tey si suba di ngeen ñëw tey Tuesday si suba boys si gisuñ dara ñu ngi ne leen toog Cameroun di tamba mbaalu ah ngeen foog ne loolu rafet na boy yi ñëwuñu ñu cancel seen flight si te xaalis loo xamante ne ñoom ñoo ko génnee seen own pocket teyul neen kenn flight booy su ñoo nekk ak dispense seen own xaalis si lii te xaalis bi ngeen amee yéen yéen ko dugal seen poche bañ a book flight pour nga gis ne di ngeen mun a awwee ci ndig flight bi xëy na dafa seer wala li ngeen a génne dafa bari dem na fii moto bi fële ñii flight bi nii waaw dafa bari moo tax doo leen ko génnee parce que yéen a ngi xalaat na di ngeen desee wéccit xaalis boobu ñu rees yëpp pour yàlla wala pour boy si loolu laa bëgg xam doo leen fayal booy si ñu ñib si ngeen bàyyi leen foofu ñu toog fa ba pare si kaw loolu ñii dañoo dem football yi dañ am yeneen liggéey yeneen soxla yu ñu war a def bàyyi leen soo leen mun soo leen munta indi gars ngeen bàyyi leen ñu fayal seen boppa dem dem seen club si ñu dem play football sagal seen waajur yi sagal Gambia parce que booy su ñu nekk di play outside yëpp seen mbokka yaa ngi fi ñoom ñooy dundal gaay ñooy jox gaay loolu loolu waaye ngeen téye leen Cameroun ba pare si ko loolu yëpp lu Gambien si yëpp buubu dem airport démba defu leen dara génnu leen wax ne waaw ni ak nii la fa demee ngeen ne teg toog frankulaay I'm trying to keep this respectful yeah I'm not disrespecting anyone but we have to tell the truth lii du mun a continuer for the next generation xale yooyu noonu ñu ngee ñëw suñ gisee lii nii dañoo tayal duñ bëgg a play duñ bëgg a football duñ bëgg a xam lan moo nekk si football wala suñ ko xamee sax dañ ko dem player beneen dëkka lan moo nekk suñ problème ñun Gambia ñun lu tax mënu ñëw try xam nga lu ñu ne lu xew sa dikka da nga koo emal mu em fa waaye bii dañ ko wax ñëpp dégg ko fii amul luñ fee nuba nuba fii dañ koo suñi dañ oo turi